Touba ca kanam wajalilaahi maskani Touba maa leen di nuyu di rafetlu aussi jataay bi nga xam ne bi am nañ ko tey pour jéem a waxtaan ci loo xam ne lii moom liggéey la boo xam ne bii Sëñ Touba moo tax ñu di ko liggéey Touba ca kanam moom nekk na loo xam ne lii murit yépp ak sénégalais yëpp sax laa wax ñoo war a jàpp organisation bu mel ni Touba ca kanam mooy ngeen ñëw di basé wu ci investissement humain murit dégg nga ngeen jël lépp loo xam ne lii seen doole ngeen ko def def ko pour benn nit boo xam ne bii ñun ñëpp ñoo ko yoreel njukkeel ñun képp koo xam ne bii yor nga der bu ñuul yoreel nga ñukkal Sëñ Tuubaa Sénégal nag en particulier moom moo war a gën a mën a taxaw ci yëf yi Sëriñ Tuubaa Sëñ Tuubaa moom la mu doon def yëpp def na ko mu ñun nag la fi bàyyi ñu war a sukkandikoo ci ay mbiram ci ay ñaanam ak ay jëfam pour liggéeyal ko kon bu ngeen dikkee yéen Touba ci kanam ñëw génn benn modèle d'action boo xam bi da ngeen di jëf ci biir dëkk bi te boolewu leen ko ak coow yu bari joolewu ko ak ay tendance boole ko ak ak taalibe ak wax ak waa Kër Sëñ Touba ku si nekk di jël ñaqam di ko ca def ba ngeen commencé def réalisation yi nga xam ne yéen a ngi def Touba ci kenn déggagu leen benn yoon ñu ne détourné nañ xaalis ba kenn déggu ñu leen benn yoon ñu ne xuloo am na ci dangeen koo def ci ni gën a rafete jiital seen kilifa yi ngeen war a jiital di ci diisoo ak ki nga xam ne bi moo fi nekkal ku fi nekkal sëñ Tuubaa rek diisoo ngeen ci ak moom di def ci ndigal di dem ci ak gëm ba ngeen di def loo xam ne lii ñëpp ngi ciy teg seen bët ci dëkk sëriñ Tuubaa boobu kon nag loolu ñëpp leen ci war a félicité ñëpp leen ci war a jàppale beneen bi ñu saluer seen générosité parce que ku la woo ci liggéeyal sëñ Touba rek yow yaa ko yoreel dégg nga ngeen ñëw di wax nit ñi kaay leen ngeen def ci mbiri sëñ Touba ci dëkku sëriñ Touba kooku ñëpp ko war a rafetlu ci ñëpp ci war a def seen kam lay kàttan ba pare aussi ngeen jël loo xam ne li mooy yaru daara ak xam-xamu daara moo leen may ngeen nekk ay développeur di def loo xam ne ña nga xam ña nga génne Sorbonne génne HEC mun ñoo def modèle de yi nga xam ne mi ngeen koy def au nom de Serigne Touba loolu lu ñu war a rafet loo xam ne compétence mi ngi nekk ci ñi jàng arab compétence mi ngi nekk ci jàng turkale mais compétence mi ngi gën a nekk ci nga xam ne bi dafa jaar ca daara ja ñu nàmpal ko mu xam li sëñ Tuubaa bëgg mu tegu ci yoon boobu loolu moo leen permettre que ngeen di def ay réussite ak di def ay affaires yu rafet léegi nag li ngeen proposé ci ne léegi nañuy def ay cotisation boo xam ne ku ci nekk war ngaa manifester sa taalibe ci Sëriñ Tuubaa manifester sa d'accord ci li nga xam ne bi li yéen a ngi koy def ngeen yombal ko muy loo xam ne lii nekk na à la portée de n'importe kii mooy au lieu ngay toog ba Touba sa kanam soxla nga daal di ñëw ne man kat def naa ci sama 500000 yii def naa ci sama lële bu ñëpp demee ku ci nekk jël lii ngeen wax cotisation 1000 francs par mois nga di ko ci def muy lu la war ba kañ la la yàlla suñu borom di la fi jëlee. bu fekkee problème bu nekk fii ci biir Sénégal yéen ngeen bëgg koo réglé ci biir Touba ca kanam da ngeen ko mën a def ba lépp lu ñu war a defal dëkk bu tedd bee di dëkk Serigne Touba ngeen am ressources yi pour jël en sarge le développement de Touba. parce que développement de Touba laa la bëgg wax ak dëkk yi nga xam ne bii Serigne Touba moo leen sanc sancu la ko murid yi am nañ doole bi pour dem liggéey ko ca du ñu dépendre sax ci état central parce que Serigne Touba li ñu am investissement mu humide murin murit mën na régler lépp loo xam ne nekk na ci ci jataayu euh, ci affaire mbiri Serigne Touba kon cotisation bi ku ci nekk war nga cee bokk ku ci nekk war nga ko vulgariser pour que nit ñëpp gën ko xam parce que ñun ñëpp dañu am obligation pour faire la promotion de Touba ca kanam di waxal Touba ca kanam di yee nit ñi ci Touba kanam di fédérer l'ensemble des mourides et des sénégalais sax yi nga xam ne bi la bëgg noonu lu rafet autour de Touba ci kanam kooku suñu mission la ñun ñëpp waruñoo toog sax ba ngeen ñëw di ko wax kenn képp koo xam ne kii nekk nga jullit nekk taalibi Serigne Touba Touba ci kanam di jëf di defal ay route di defal ay dispensaire di jënd ay oto indi logistique am nga obligation ak devoir boo xam ne bi da ngaa war a def te kenn du la ko wax donc ñun nu sommes tous des militants de Touba ci kanam te ku ci nekk war ngaa def sa kem lay kattan pour jàppale leen pour def la nga war a def parce que mbir mi du jàppale leen ah jàppale sa bopp la parce que sëñ bi moo ñu fay ñun ñëpp te itam li ñu ko yoree rek mooy dëkk yi mu fi bàyyi ak li mu fi teg nañ ci wone ne vraiment teg nañ ci yoon wi donc war nañoo def tout pour defar ko sëñ bi dem defal nañu yoon woo xam ne wii war nañoo mën a taxawal benn banque boo xam ne bi ressource yi nga xam ne bi moo jóge ci Touba ca kanam di jóge ci at yi ñu jox ñu tudd ko compte compte mu Rasuul boobu nañ ko def mu dugg ci banque boo xam ne bi waa kër Xaadimu Rasuul ñoo ko taxawal buñ ko defee ci la ñuy mën a dimbali daara yi ci la ñuy mën a defar ruur yi assainissement Touba yi ci lañ mën a de entrepreneur yi nga xam ne bile ñu ngi soqeekoo ci waa Kër Sëñ Touba soqeekoo ci jullitu Sénégal ñooñu ñëpp danañ am benn banque boo xam ne bi dana leen di financer ñuy dem di liggéey te duñ leen tegal ay intérêt yoo xam ne charia bugg ko donc loolu bokk na ci li ngeen li ñu war a jël projection ñun ñëpp jëm cee waxtaan ci ni mu gën a rafet ñu taxawal ko nga xam dana defar Touba defar Sénégal ci boppam kon daal pour résumer Sénégal yëpp. ak jullit yëpp ak murit yëpp dañoo war a jàpp ci lii tubaa ci Kanam di def jël ko dox ci parce que njariñu askan wi la mu nekk benn modèle de développement boo xam ne bii réew mi dina ko jël Afrique dina ko jël parce que la libération de l' Afrique bi ñuy wax commence par la doctrine de Serigne Touba mooy levier bi nga xam ne bi li mooy développer Sénégal mooy développer Côte d'Ivoire ëllëg mooy nekk le modèle de développement bu ñuy jël à la part de ñuy tudde ay Ricardo ak ay Smith Serigne Touba est le levier de notre développement njariñu taalibe yi la te loolu waral nañ ko waral nañ ko suñ tubaa waral nañ ko suñ tubaa ak lim fi def ak dëkk yi mu fi bàyyi waral nañ ko loolu pour def fi lu mu fi def daf fi lu fi kenn deful kon ay taalibeem dañ fee def lu kenn dul def ci àddina bi te mën nañ koo def te borom daaru noo xam ne de bala noo xam ay aka neexoon muy suba aka neexoon muy suba boobu mooy aka neexoon bis penc di suba bu ñuy xam kan mooy Serigne Touba waaw léegi nag ñun ñu commencé nañ koo xam fii yàlla nañu yàlla dimbali ñu sax ci taalibe di ko liggéeyal rek ba kañ lañ koy fekk. Touba ca kanam. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi xayri ma nabaat